asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi am di jàmm yi soppe yi wala yi nga xamante ni bii ñu ngi déglu ci jamono bii ñu toll tembe barakallaahu ànd ko seen mbokk seen xarit seen soppe grand serigne de ci cinq minutes yi muy def fii ci précise tabarakallahu ma di nuyu madame Ndiaye mi nga xamante ne bii moom moo te caméra yi tax ngeen jot ci ñun tabarakallahu di ko ñaanal sunu borom moom it yal na yàlla sàmm ko ci barke yonent bi sallallahu waaye mbokk yi tey maa ngi ñëw ci yéen ci weeru koor weeru koor dafa am ay màndarga yoo xamante ni bii yàlla moom lañu ko joxee waaye yàlla tamit bëgg xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jox ñu lii nga xamante ni bii moo di weeru koor kon jox gi mu ñu ko jox war nañu ko defal li nga xamante ni bi moom la bëgg yàlla bu ne yaa ayyuha allazina amanu ee yéen ñi gëm ni yaa ayyuha naas ee yéen nit ñi ni yaa ayyuha allazina kafaru ee yéen ñi weddi kon ñun war nañ cee xool suñu bopp yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min xablikum laallakum tattaquun mbokk yi yàlla dafa bëgg bu ñu génnee ci weeru koor bu ñu daan wax lu du dëgg ñu arrière bu ñu daan senn ñu bàyyi bu ñu daan sàcc ñu bàyyi bu ñu daan werante ci làmmiñ yi ñu bàyyi bu ñu daan xool ci bët yi lu jaaduwul ñu bàyyi bu ñu daan dégg ci noppi lu jaaduwul ñu bàyyi xam nga wax na lépp lim ci bëgg mooy laallakum tattaquun ja mooy ragal borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi nañu ragal yàlla ku ragalul yàlla doo nit xoolal madame Ndiaye daaw ci heure bii fu vingt et une heure jotee ñëpp fatu kan moo la tëdduloo sa moroom signé décret rek ni vingt et une heure fu mu jotee neuf heures ñëpp fatu ñëpp fatu kon yàlla buñ ko ragalul di nit ragal gi ñuy ragal borom bi nak sunu sunu affaire ñun mo ci bax ndax borom bi dafa mag borom bi dafa tedd borom bi dafa yiw borom bi dafa bari katan moy bur bi nga xamni faalu lima yurid suñu sunu nak buñu woré du xif ak mar kep la ci yalla soxla dede mbolam cër buñu yalla jox borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg cër yooyu woor tànk dafa war woor loxo dafa war woor bët dafa war a woor nopp dafa war a woor gémmiñ ak làmmiñ danoo war a woor waaye awra dafa war a woor yooyu yépp lu ñu sunu boroom jox la ni ñu na ngeen fexe ba mu woor am na ku ni fi woon nag daaw soo wooree fóonanteeg sa soxna dagan na woor di fóonante nag moom ku ko mus a def rek jëlal sama numéro 037 55 83 zéro fóonante moom ci weeru koor daganu xam nga lu tax madame Ndiaye mais boo wooree am na xet yu génn si gémmiñ kooku yàlla moo ñaali bàyyiwulu ko kenn ñépp ko am yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ku wor ba ngoon madam jay xetu gimmiñ gogu ngay amé muy génn sëlër bi di genn di dagase te nekul xet bu neex moma gënal mo gënal yalla parfum misk nak da nga def li yalla bëgg da nga def santane borom bi subhanahu wa taala kon mbokk yi nopp bu woré na bayyi xel bopam bu mu dégg mukk lu aram bu liggéey jee ba wàcc bu mënee jàng alxuraan na ko def su ko mënul na taalub rajoom dublu waaraate su ko mënul portable yii am na ci ñoo xam al abdul basi ku lépp képp ku jàng al tajwid alxuraan seet ñu ngi ci youtube bi nga tele téléchargé xool soo ko mënul nga dem ca jàkka ja toog fa oustaz di Diop di tafsiré alxuraanul karim nga toog déglu ko yooyu yëpp ay occasion la ci ñun jullit yi yooyu yëpp ay occasion la yoo xamante ni bi war nañu cee profito waaye woor ba ngoon di dégg suba ba ngoon ay saaga di dégg ay jëw di dégg wax lu dul dëgg tegoo ko ci yoon amoo koor ku ko def amoo koor walla boo amee koor nga am nga bàkkaar boo xamante ni bi suñu borom subhanahu wa taala sa koor xiif nga ci am ak mar yal na yàlla defal ñu dégg ak topp تبارك ينتبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله عزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته